yaa fi récité sa leçon nii ba toog. Ah, taxañ taxañ tagg fi mu mën doon yi tagg fi dagg yi métti yi nii ay enfant xaw ma l' enfant chéri de xaw ma parcelle xaw ma lan ak lan ak lan. <laughs> ma xaw ma l' eh, dafa préparé combat ma préparé sama komba mu am ay mbokk ma am ay mbokk ñu bëre match nul bu metti yaa ngi dégg. non non c' est pas c' est question de Lac su ko defoon. lan moo tax ñu jël toor bi ko teg ci Lac de Guiers lan moo tax li ma defoon est ce que mun ko def lan moo tax ñu ne Lac de rek moo war a def lépp. est ce que yaakaaruñu waaye defuñu noonu favori. yow defuñu ma heure bu ma defee favori ma umu ma kenn def favori heure bu ñu ne Lac de Guiers man favori rek laa ragal. Uh-huh. man balaa may gën a fas jom dëgg-dëgg nga ne ma Lac de Guiers mi yaa ngi dégg mooy tokaar bi. mu dafa ànd ak ay mbokkam ma ànd sama mbokk ñu ñëw bëri match ni loolu kese la woon mais c'est pas question de la de guerre moo ko ëppoon mais xanaa Modou du entraîné Modou day entraîné di mu àndaloon dama koy daan loolu kese la entraîné na ñun ñaa ñëpp kenn ku nekk entraîné na ñu ñëw bëree jour boobu noonu combat bi metti gars yi jël toor bi ko sama ko xam nga moom tamit wax ñoom dañ ko mën a quoi wax gi dañ dañ la ciy gañee buñ la gañee ci wax gi rek jeex na te man moom mooy lool su ma waxee tey balaa maa waxaat at ba at laay wax waaw. match boobu noonu gars yi doon la feneen ñu gis ni nga lajj après kan nga jëlaat. bu am boobu la ma am waaw boobu la ma daane. après am naa boobu la amaatee non après am bi. dafa Eumeu Sène ko amaat Papa Sow non non Papa laa amaat parce que boobu def naa année blanche ba ba mu Eumeu Sène daanee pare def naa année blanche deux ans voilà après ma ñëw am Papa daan Papa am Yékini daan Yékini jóge foofu amaat Modou Lo yaa ngi dégg mu gañe par point. daanu daan. Modou Lo mënul daan Lac de dañu nañu waxi leneen par point la gagné arbitre yi arbitre nu leen neexee nag waaye sama àq dala leen arbitre arbitre nu leen neexee <laughs> ah, waaw waaye <laughs> maa ngi ñëw. mais Lac de Guiers combat boobu noonu mu nekk combat boo xam te ne Lac de Guiers mootu koo fàtte ci kër àddunaam. Lac de Guiers ñu ñu dagg la ci 7 million 40 mille bu ko bàyyi. ah. da ci booleeg 7 million 40 mille. waaw 7 millions 40 mille. ñu aj la ci la dëggeer nag pour une première fois gars yi mosuñu koo xam ci wax la dëggeer presse bi dinaa wax de loolu kuñ ko dagg nga wax dagg nañu daay seen quinze millions daay seen di wax wax wax wax ba nii tey daay seen day wax mm. ma ñu dagg ma nga du wax yëg ni dagg ba pare waxul yëg ni bu fekkoon part point yi kon li nga wax ndax Modou Lo sax dañu jox victoire mais bu nekkoon part point yi tey fekkoon place bi nga nekk fa la Modou Lo nekkoon euh, ñu jox la victoire bi est-ce que euh, dagg bi ñu la dagg dina la kii. non wallahi barki yonent yàlla Muhammad bu fekkoon ni ñu ko joxee Modou noonu lañ ma ko joxee ñu dagg ma 7 millions 40 mille damay wax lan laa def lu tax lan laa def ba ñuy ba ñu dagg 7 millions 40 mille ah mais wax la woon il fallait que ma wax wax leneen lañ tegu nit ku ci yoon. nit nag bu ko tegul ci yoon ak lu mu doon sa kilifa kilifa kilifa da ngay wax ne lii du yoon mais boo gisee dëgg nga tax wax dëgg après buñ la lu leen ci teg bi noonu ma ci ah nee nañ waruma woon wax moom a jaaxal luwaa boobu dafii la gisee nga am loola metti nga wax ñu dana kaay dagg la aj la fii rek la yi ah. je ne jamais vu moom pour man nit bu amee lu ko metti bu taxawee wax ko. am na droit taxaw wax lu ko metti wala après bu ñëwee nag commission xawma commission discipline bi xawma ñooñu bu ñu ñëwee ñooñu mën nañ la mën nañ la jubbanti na la lii bu ko defat lii ak lii ak lii jeexam loolu rek la. nga pare ci loolu noonu ban combat nga jëlaat. ma pare ci kan ci Modou Lo bi après boobu laa jëlaat Papa Sow piment bi borom kaani gi après ma daan ko après ma bëre Yékini ma daan ko. Ah, hmm. waaw jamono googu noonu non jamono googu mënu woon saf. safa bi yëpp maa koy yoroon sama loxo bi waaw boo seetaanee am na benn émission boobu daf nee na la déggee ba mu ma dóor dafa mel ni ñaari nit laa doon gis ñuy def nii. boobu loxo yi ñoo amoon kaani nag kaani gi nekkoon ci moom sama loxo yi laa ko defoon waaw. nga jógee ci sa référence. sa mbër sa lépp. kooku dama kaa bëgg dama koy wax en haute voix ci li ma ko bëggee lenn la li muy def da ci am fulla bëri bi da koy jox àqam buy wax. boo ko dégloo rek di nga xam bu baax fu muy waxee man ci loolu laa ko nawe waaw buy entraînement da ciy dem ba jeex tàkk waxam dal gi combat yi bu ñëwee day joxe fulla ak fay da xam ne kii li muy def ni da ko bëgg ci biir xolam waaw. yéen a ngi déggante non déggante wuñu nag sincèrement parlé mais maa ngi koy ñaanal na ko yàlla defal jàmm mu ànd ak wér ak wér la moom mooy allez promoteur la ah, mhm. ah na gaaw tëggal ma combat nag oh, grand yi gi nii maa ngi lay ziar baax a baax a baax tëggal ma combat nag comme yow yaay faata production ah. mhm. waaw léegi tëggal ma man bëgg naa laa bëreel man <laughs> waaw waaw lu kan lu ma fay ma jël ndax dama ko bëgg. waaw. su ñëwoon ne la Lac de Guiers du la fay dara yaa ngi mbër mi kaay bëree maa ko mëseen. Ah. bëgg naa. yàgg ma seen ku la fayul woon dara nga bëri. wóolu bëgg naa am demee noonu. leer laa uh-huh. naa de. mu la ma. waxuma la par wax. ah yëg ah waxuma la waxuma yi de promoteur ku fi ñëw da ngay fay. Ah, nii bu ñëwee taxaw na ma kaay ma tegal ak kii. moom la fay dara ma jël ko ndax dama kaa bëgg jeexal nga paree ci euh, Yékini kan nga jël. mu paree ci Yékini. Hmm. kan laa jël. Modou Lo boobu la moom mooy kii bi décision arbitrage bi. Hmm. léegi ma dajante kii booy bi booy bi dikk Pikine. borom cumbux. lan cumbux. nu mu tudd. cumbux nga am nu man bëriwu ma ak ci mukk de. l'enfant chéri de Pikine xarab géwal gi la. benn la fa l'enfant chéri de Pikine. kan la ama. yéen ñaaka ngeen jubóo. <laughs> ama ama ama mosu waaye ama bàyyi ci bopp bi rek. mais est-ce que magam moomu dëkk. ah Zilbale ah, balaa moo ñëw ci ci man lay jaar de hmm. waaw <laughs> maa ngi koy nuyu. nga ne benn nga ne Pikine benn l'enfant chéri ah. ah. c'est son problème. dëkk la fi seen combat gars yëpp di ko wax ngeen juboowaat. eh déglu mu ne bu baax. Ah. dama ne la Ama man mosuma xuloo ak moom. Oh. même bu taxee wax ko baal laa ko ci bu sedd gi mm. daa xamul fu muy teg tànkam rek eh. mais moom mooy enfant chéri de Pikine l'enfant chéri de Pikine moom la mm. mu neex leen mm. waa Pikine moom la mu naqare leen moom la li ma waxal yëpp baal naa ko mais maa ko waxal lu baax loolu waaw maa ko waxal lu baax loolu mu neex leen waa Pikine ah mooy enfant chéri bi l' enfant chéri moom la mu naqare l' enfant chéri moom la. du samay wax waxul ak de la booy ñaa Pikine nga dëkk xale Pikine xale géwél gi soo feccee mu neex soo bëree mu neex. xale. xale géwél gi boo feccee mu neex boo bëree mu neex. Ah. kooku. bu feccee mu neex bu bëree mu neex. su feccee mu neex su bëree mu neex. waaw. waaw. garaaw am problème na fecc mu neex na bëri mu neex. Mm. waaye en tout cas bi daal wax naa leen ko. sa combat ak Boy gis combat boobu noonu la dégg dem na benn instant ne bëriwuma ak moom ñu jékki-jékki waat combat bi booy ñaar jàpp rek Boy Niang moom bu xasee ba jàpp du bàyyi jàpp jàpp jàpp ba am la dëgër mu nekkoon combat bu neex. combat boo xam te ni ñu gis ni Boy Niang bëree na ndeysaan wane ci boppam. combat bari coow. Eh, ñàkk am conseil moo tax mu jaar ci Lac de Guiers 2. ñàkk am conseil mu jaar yoon moo tax mu jël Lac de Guiers 2 mais moom il savait très bien que ne jël na client boo xamante ne du am ci moom naada mais nag comme instant bi nii lii dafa neex xaalis dafa neex. bëreeg Lac de ci sa parcours neex na c'est bien bon. noo non boolewuñu ma moment boobu sincèrement parler boolewuñu woon moment boobu moom dafa am nu mu def géej waaye loolu nag moo ma métti nag moment boobu mu tongal ma ko rek bañ maa bàyyi mel ni weñ bu nekk syndicat di dàq ji màngo bu nekk géej waay te du ma bàyyi ma ne ko nag kaay nag léegi ma tëj tëj sa làmmiñ nga toogee à côté ñu xoolee leneen ndax géej waay mën a nooyi mm. loolu kese la woon. kon da nga doon sa rakk yi nga doon kii rek. boolewu leen xaalis moo leen boole wala leen boole. kii xaalis moo ñu boolewoon rek dara boole woon ñu maag moom bokkuñu sax parcours maag moom bokkuñu sax yoon bi man yoon bi ma jaar bu fa jaaroon doo doo ko dégg sax heure bi bokkuñu sax ñi nekk làmb xam nañ sax li ma leen di wax ni du ma waxantu bokkuñu sax yoon maag moom. Hmm. ñu gis ne ngeen bëre yéen dugg na fu ne jaar na ci falan yi jaar fu nekk mënul dara Lac de Guiers ah Boy Niang Boy Niang bëre ba naaw. xanaa yow seetaanu làmb ji. ah dafa bëre ba yow bàyyi mu waay yow wala ma tax ngay répété waat ngay répété waat sax affaire combat sama diggante. non parce ñëw pour pour une première fois wasaare làmb seet si la booy ñaar dafa bëre yow ba naaw aw fu nekk. fan la aw maa fi. fu fan la aw Boy Niang daa aw fenn. booy ñaa ñoo dalante man runkum daje mu fekk fa lu wow koŋ boobu la tasee jàng ya jàng ya fa la tasee la mu indi bés boobu ci làmb moomu ko corpérance boobu mu indi noonu moomu ko bu indi bu liggéeyoon dëgg laa la wax bu liggéeyoon dëgg kon combat bu demee ni mais dafa dese lu bari gisoo dafa gaaw sonn parce que la mu yenn boppam moo normalul nit bul ne mbër mi toll na nii rek yaa ngi dégg xaama dem yokk sam déedéet ak noo mën toll man ni ma toll noonu laa ma si toll dama koy gérer entraînement yi jamono gi may ba nekk booy di jóg dama ci doon boole entraînement yi metti di yokk sama pois di ci boole entraînement yu metti di yokkaat sama poids di ci boole entraînement yi metti ba guddi yi entraînement yi metti moo fi bàyyi ba nii tey kon donc bu lee da ngay dajanteeg mbër mi rek xamoo fan la nan la xolam mel xamoo ndax mu xolam dafa toll nii tuuti xamoo tax mu xolam dafa ñëw coin ba coin nga ne da ñëw ne da koy caax-caax dafa man a nekk bul yenn sa bopp loo xam du la arrangé bàyyil ni nga mel ni nga mel bàyyi ko nga entraîné su ba nga xam ne ni yow mooy loolu man ku ciy bëreeg man di nga entraînement ba woccu sama combat ak Boy Niang gis nga Boy ñaa dëgg la maa moom bokkuñu catégorie parce que man xam naa ne rêve am yëpp mooy daan mu daan la de guerre te ay magam lu ñu mënul ci man moom du ko mën ci man parce que sama combat ak Boy dama ci entraîné laa la wax de ba presque mën naa ne sax loolu dog la parce que booy demee bay bay bay saw dret xamu la xam nga ne kooku dem na ba maanaam fournir na lépp loo xamante ne def na ko ci entraînement kon donc kooku noonu bu demee ba làmb jaral ko diggante moom ak Boy Niang loolu rek ba loolu dal ko ci rek jàppal ne mbër moom noonu il faut nga liggéey dëgg pour mën a am loolu ci moom. am na beneen booy boo xam te ne instant bi sa kaw la jëm ah jëli nañ ko xam nga ah booy bi nga xam te ni ah Garga Mbossé Garga Mbossé nee ma Garga Mbossé moom ma Garga Mbossé moom noonu mais Garga nee na instant bii nii pare na pour bëri ak yow nee yow da ko war a may chance parce que tamit nee na yow pour mu daan la am na métode ba mu ko travaillé mais ko mu kii Garga na booy bi ñëwoon. Hmm, nee na moom am na méthode bu ma daanee. Ah, ah, ba mu amee méthode la moo jox ko magam pour magam daan ma waroon na ko jox magam magam daan ma nag comme am na méthode boobu. est-ce que ko yow seetaan nga ko sax wala dégg nga ko. naa ko. mais ba ma ko seetaanee pare damaa toog di retaan sama bopp. Mm-hmm. Euh, dama xam na Garga mi. bon maanaam benn tànk bi xam na fu mu ko teg waaye beneen bi xamul fu mu ko teg. parce que bu xamoon fu muy teg ñaari tànk bi maam du wax la dëgër de ne kaay ma jox la ma la dëgër na góorgóorlu waat bañu ma bëree moom mais na gën a góor góorgóorlu waat am na ñoo xam ne war na mën a dajeek ñoom xam la war na mën a dajeeg Alioune Seye 2 war na mën a dajeeg saa saa kees xam la mais na jël combat yooyu na jël Alioune Seye 2 sax ba pare waaw. waaw. ban la fi def nag yéen tamit. Moussa mi Moussa sama mbokku taalibe Cheikh boobu noonu mm. waaw la fi daan garga la la fi. waaw laaj naa leen la fi garga daan léegi. man eh, buñ eh, émission moom boo yàq mu wax garga. ko parce que garga tamit dafa taxaw di la laaj mbër la moom tamit par laaj na. waaw man bugguma garga léegi ndax du ma ma lekk garga garga tool yi laa ko. mu amaat beneen boo xamante ni dañ ko euh, dafa année balance ndeysaan ñu koy nuyuwaale bu baax muy euh, Malick Niang moom sax moom tamit mi ngi la doon laaj Malick Niang. Eh, bàyyi ma Malick njëw ñu ngi ma la ma. waaw waaw waaw Malick <laughs> Malick Niang champion la de champion la ndaanaan la mais lépp loo gis rek ñun bañu ñu bëree kenn mais gars yi nañ gën a góorgóorluwaat nañ gën a góorgóorluwaat. liñ fi def ñoom tam ñu def ko fi wala ñu def lu fi raw pour mën a bëreeg ñun parce que ñun dañoo dañ ñun tëbuñu état bi ah boo xoolee ñun ñi nga xam ñun ñoo génn ñun tëbuñu état bi dañoo rayante bëri bëreeg suñuy morom ah bëreeg suñuy maas bëreeg ñu suñu mag yi kon donc ñun suñu parcours dafa metti surtout man boo boo boo xoolee sama sama samay combat ay combat janq rek laa doon bëri ba ci kaw ba ca ba ma eggee ci kaw nag ci laa bëree sama papa Moussa Gueye ak. sama grand baabooy ak sama euh, grand Yékini ak sama tonton Eumeu Sène. lan tonton Eumeu Sène. ah Eumeu Sène sama mag la tonton la tonton laa koy ak sama tonton Eumeu Sène ñooñu la. sa combat ak Tafatine Tafatine moom nee na nga koo ragal nga jox ko revanche. neen da nga koo nga jox ko revanche dala waaw dala réclamer ba sonn Tafatine pourquoi doo jël Tafatine. man maa wax da ngeen mës a dégg moom bi sama gémmiñ ne man bëgguma Tapha Tine. laaj la. nañ ma fay xaaral ma bëreeg Tapha Tine tamit bëri bu gaaw. bëri na bu neex bu gaaw. Tapha waaye yaram mën a toll noonu xel bañ a toll noonu. waxu ah, dama ne la. yaram dégg dama ne la yaram mën na ngande waaye xel mënul ngande de yéen mm. waaw. ni yaram bi toll xel mënul toll noonu. du Lac de Guiers de wallahi du Lac de Guiers ma keneen du Lac de Guiers 2 de. l'enfant chéri de Fass combat yéen ñaar sax ñu ngi doon gis fan yii yéen ñaar. fexe ba mu fi courant. bu ah, ma kooku courant moom noonu ba ko courant maasee ba léegi kenn xamatu fu muy taxaw kooku na chéri à gauche kooku ragal la ñimewul wax yow boo ñemee woon ba depuis kañ laa commencé itam depuis kañ depuis kañ bu fekkee ne yàgg nga ci làmb ji depuis kañ laa commencé dëgg Gris Bordeaux. mosuñoo laal de mosuñoo laal la de. victoire la Basirou. 11 11 victoire 9 défaite. man maa la ko wax. 11 victoire 9 défaite la Gris Bordeaux. Gris dañ ko war a bule. waa Fass dañ ko war a bule ci uti. làmmeñ bee neex nag fu mu waxee rek nga ne champion mag a ngi nii bu bu bu waxee rek nga ne tey kii mën a yàpp mbër yëpp taxañ leen lii nañ ko jox waaw ni muy communiquer beneen affaire la dafa aay. non man kay communiqué moom moom kenn mënu ko cee jot moom ndaxte ceeb moo ko moo xol waaw. mais seen moo tax taxawu. ah. du ci man dem leen ngeen ko moom la ma doon taxawagul la dëgër kay bëgg na ko bu yàgg mais moom moo ko bëggul daal courant. mu moom. kii sama xarit ah, waaw nga dëgg man Maodo maa ngi jégalu de sama copain boobu noonu borom. waaw non Maodo moom borom baax la Maodo moom. moo déedéet Maodo borom baax la. nga fekk benn kër ba déedéet defal ndànk defal ndànk ba explique la. Maodo amul problème boobu noonu Maodo xol bu rafet la yor borom baax la te dafa taalibe yaa ngi dégg sama mbokk taalibe cheikh boobu waaye courant Maodo. <laughs> il faut ma tooñ sa grand frère bi de léegi fu mu la tooñatee rek xëccal courant rek nga ne nga laalante ñaari rek yi mu daw. Gris Bordeaux ñu koy nuyu au passage ndeysaan mais Lac de Guiers beneen bi tamit mooy wax nga fi Gris Bordeaux Modou Lo le nouveau roi des arènes dégg fi la de Guiers ne combat boobu noonu moo ko dàqal lépp est-ce que ba léegi fi nga positionné woon foofu nga positionné. ah mais bien sûr parce que xam nga la moo li ñëpp soxla moom moo ko yor moo tax ma ne boobu ma daqal lépp waaw maa mu il faut mu leer mais instant bi comme dafa am combat waaw ci li ma dégg ñu ne combat man daa maa ngi toog di xaar rek waaw comme daanaguma ko daanaguma ah il faut mu leer de il faut am kenn ku daanu ah, waaw te boobu mu ko téye woon nga xam ñoom mënuñoo gérer roi. mënuñoo gérer roi. dafa am noo koy gérer boo koy yoree. nan koy bëgg am ngëm-ngëm bi. Ah, xaaral la da koy bëgg am ngëm-ngëm bi. yéen may laaj ñu ngi koy gérer bañ a baisser maanaam bu la wóoree ne lii boo koy yoree yeneen mbër yëpp gis ñu kenn ku dul yow. géej gi rek yokkaat entraînement yi yokkaat ñaani bañ a nelaw nga bëgg ko nag nga xam ne li nga yor nii am na ñu koy wër da nga koy bëgg ni ngay bëggee sa soxna ni ngay bëggee na yow mii tey wóor na ne lii boo ko yoree tey du rëcc ci yow noonu nga koy bëggee dafa am benn jiw boo xam te ñu la ko doon jiwoo léegi nag booy na sa nopp gis nañ sax léegi euh, mbër yu mag yi te koo koo ci dékk micro laaj ko muy rasu bi mu ne la mbër day rasu mu leen doon jëwee la dëgg day rasu waaw ñun léegi ba nga déggee léegi ñu ne rasu ci mbër la ci ci làmb la bokk noo def. dootuñ ko defate ñu wax leen rasu ci làmb la bokk ñu naan rek tey la tey la xam ne rasu ci làmb la bokk n'importe quoi ñoom ñoo gën a xam ne rasu ci làmb la bokk. mbëri ñoom ñoo la gën ma xam xam nga lan moo lan mooy kaaw euh, kaaw mbëri c'est pas question de rasu bi xam nga question de lan la dañoo mënul daan la déguerre de. maanaam mënuñu ko daan ci lenn maanaam tey boo yéegee ci Lac de foo xam ne yéeg ngoo fa mu rasu génn ci xam la léegi boo boo paree looy def boo ko mënul daan da nga naan caméra yi bu jàkkaar da naan day rasu day rasu day rasu te rasu ci làmb la bokk père Birahim maa ngi koy nuy en passage. wax na ko waxat ko tey sama digganteeg Modou suñu combat bu mujj bi paas ba ma ko jëlee si taanaat leen combat bi lan la def pour génn ci dafa rasu ba génn ci tey bu rasul woon tey daanu làmb rasu si la bokk buñ ko ci génnee rek jàpp nañu bëri dinañ daanu nañ ci génnee ku ñu rasu ñu ne ñu jox la defet kon di nga gis kenn ku ñu jël mu dox ñaari paa loolu pour la la rasu la mais ñoom xam nañ loolu mbër yi xam nañ loolu de mais seen problème len la mooy mënu ñoo daan la déggee deux léegi bu ñu toogee ne ah kooku boo ko jàppee day ras ba fële day dem ba fële nañ bañ a rasu wala ñu yóbbu seen mbër ñu yegg foo xamante ne war ñu ko fa yegg ñu xool bu rasuwul dañ naan yow bu la tax rasuwoo génnoo ci. beneen ñu bari ne da nga concentré wu ci mystique de trop loolu moom moo tax. say combat di xaw a metti parce que am na benn jëw sax bu ñu la doon jëw ne la rek da doon bëre nice di kii nice mais depuis ba mam Mamba génnee àdduna ba léegi la combat bu commencé nekk ay tolof tolof ndax la dëgg instant bi mystique bi dafa gëm mystique torop torop torop moo tax la dëgg pour làmbam sax pour mu daan ko problème la. waaw noonu la damay gën a dolliwaat sax comme loolu la ñu wax damay gën a dolliwaat mystique bi hmm. non sérieux duma ko bàyyi de mu gën a safaat. torop sax dama ko bëgg sama xol ah ci làmb la bokk de naka kenn bañ a bëgg xool ñu nekk ci bureau yi sax dañ koy bëgg lu leer laa la wax ku nekk ci làmb ji nga nekk mbër nga takk ngemb bëgg nga musique promoteur yi sax ñoo ñu gën a bëgg musique fuuf ku ko ci bëggul xam bu seen ndong di dal ci suuf dalay bett de akamaka dama koy dolliwaat damay dolliwaat de du ma bàyyi na gën a saf rek. saison bi presque li ci des bareetul gis nañ bëri yu bëri amaguñ combat amatuñ komba Balla Gaye bëri booy Boy Niang suñ papa Gaston mi ngi doon wax combat bu moo ci nekkoon ñu gis Modou ak Ama Baldé boobu tamit ñi ngi ñaan yàlla mu am mais ba léegi mën nañoo jàpp ne amul Lac de amagul komba Gris Bordeaux amagul combat Modou amagul komba loolu day yàq làmb wala lan day def ci làmb ndax instant bii ñëpp yéen ngi toog macha allah te combat amagul. est-ce moment bi saison bi tëj na pare tey ni képp ko amoon yaakaar di nga am tamit boo ko am déwén nga mën a bëre parce que moment bii nii balaa bi wàcc sant Sénégal fii xam la loolu moom il faut il faut il faut il faut nit ñi wax ci quoi. xam nga tey ak moment bi ñu tool nii nii nii xam la saison bi li ci bareetul yaa ngi dégg ñu ngi ñu ngi nekk ci moment bi nga xam ne moment de crise la. tey feebar bi wër àdduna lëmbi Sénégal fii waaw dafay nekk li nga xamante ne tey pour am ci combat beneen problème la fu ne képp ku ci am combat sax déwén rek nga mën dem bëri ji déwén rek nga mën a bëri ji te du ci man kese ah yeneen mbër yëpp am mbër yëpp ñu ngi ci biir waaw. bon xaju ci daal xaju ci sincèrement parlant xaju ci. naa dañuy waajalaat déwén rek incha allah bu neexee yàlla parce que li ci des pour koor gi ñëw un mois moo ci des pour koor gi ñëw waaw loolu la quoi. pour yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb ah, tey ñu dara ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers numéro 2 dégg ngeen waxtaan bi ah pour yéen ne yéen ñu ngi ciy soog a dawal euh, wax dëgg ak moom waxtaan bu yaatu ci li nga xamante ni moom mooy parcours am ak ci làmb instant bi année blanche bi ak li nga xamante ni moom mooy feebar bu lëmbee jamono nee naa nag tey émission bi ah waaye États-Unis laa ko may sama patron Babou ah tey moom euh, Basirou mooy sama premier patron mais yaay sama deuxième patron yow laa may émission bi DG euh, suma PDG bu nice bi wasaare ramb daal wax dëgg yàlla ñi ngi soog a am nag euh, PDG bu nice ndax Sénégal moom instant pour l' instant moom mën naa jël pay sama PDG dafa nice wax naa leen ko sànq ci vidéo Adama Diouf bi après dinaa génne photo ya ah, courant rek après ma xool madame madame baabu waaw da ngay comprendre rek xam nga ni mooy loolu quoi